ki ñuy seetee moom mooy Cissé Lo Cissé Lo li Idrissa Seck jël seen tur parti tuddee ko parti bu bees bi nekk na la ko metti nañu dem seeti Cissé Lo du ma ci boole wax Awa Gueye maa ngi dem nii Dakar laa jëm bul ma téye saa ma la tàggoona maa ngi dem ganam bul ma téye bàyyi ma rek ma ñëw anañu anam barki Serigne Touba maa ngi nuyu kilifa diine aada yi nekk ci réew mi yëpp Macky Sall laa bëgg waa senegal xam mooy kat sëb xa li ma bëgg ñu xam ko lenn rek la duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg maa ngi koy boole kilifa diine yi nekk ci Sénégal dale ko Tiwaawan ak Touba bi nga xam ne fi laa juddoo jàpp Njaasaan dem ba Kaolack fàtte wuñu bàyyi laay fàtte wuñu njegéen njegéen ñi fàtte wuñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci xaadar yi bépp tarixa murit ak tijaan ak laayeen ñaseen ak képp ku gëm Seydina Muhammad rawatina bàyyuma ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàngu yi cardinal bi maa ngi lay appelé Idrissa Seck tooñkat bu mag la ni mu gàttee noonu la mun a tooñe ni mu nekkee ndaama noonu la sobe lii muy def ki nga xam ne mooy Macky Sall fu mu ko teg parce que xam ne ne Macky Sall nit ku lewet la ne domb boo tegee ci cin teg ci ñebbe teg ci coof roof ko ba mu saf def carotte ak ñam bi am na légume boo xam ne moom la ñuy wax nawe ni mu nen ni mu nekkee ci bool bi ne yemb ne yàcc noonu la Macky Sall me du tooñ kenn dafa yar yàqulul kenn waaye li Idrissa sekk bëgg a def ci réew bi maa ngi koy boole kilifa diine yi balaa may dal ci kawam dinaa leen ko tàgguñ wax leen ko rawatina yéen waa Thiès ak waa Tiwaawan Idrissa sekk day tooñ ba pare daw làqutu ci kaw nit ñi tegu ko fenn moom indi na parti ne réew mi la ñu dem élection huit pour cent sax amu ko tekkiwul dara ci réew mi ba mën taxaw tey nan day jël turu jàmbur di ko di ko mbubb fu ko teg tooñ nag dañ koy seetu ci xale waaye mag du tooñ te mag du fo wax naa ceeg Macky mu daadee toog na ma moom Idi da koo jaaxal ma ne ko lan moo la tere mu ne ma ni ma yàlla bindee buggumaa yàq li nga xam ne mooy benno yàq waaye kii mu ngi bëgg a tas Sénégal duma ci boole wax réew mi ñëpp lay avertir et je lance un op à waa internationale waa e e wax naa ko barki démb président assemblée nationale Guillaume Soro nee naa ko yaa ngi ñëw ci moment bu neex parce que Idrissa Seck boo demee CEDEAO dañu koy boole du ma ci boole wax samay bal laa ciy def barki Serigne Touba tàggu laa ñëpp laa leen wax réew mi ñëpp lay tàggu maa ngi nii di pompier Thiès laa jëm ku ma fekk diggante Pout ak Thiès noo sant nga a Seck sama yoon nekkul ci ndax dana ànd ak Macky war a ànd Macky buntu kër Idrissa Seck laa jëm maa ngi ñëw xaw ma ndey Penda xaw ma ndey Daba ku ma fa fekk ci kër gi bu fekkee ne dañuy réunion naan APR dañuy tuddee seen parti ku ma fa fekk dinaa la pew. ñi taxaw ne dañu may ana ñu taxaw ne dañuy jël seen parti tuddee ko APR dama ne ministre de l'intérieur maa ngi nii taxaw ci réew mi yor sama pistolet dama ne Macky Sall ni ko yàlla bindee mënu ko changé nit ku lewet la Idrissa Seck tooñkat la sa sekk dafay njoosaate te dama bëgg waa Sénégal xam ko dinaa ko dóor bal ba ñëpp xam ne barki Serigne Touba peew anañu anañu mu àndal ana ngeen li di woote boolu ñooy ñëw leen ku ci taxaw ba ne la peew anam ana Idrissa Seck ana Ndeye Penda bi muy wax anam anañu yow nga am sa parti tu ko réew mi ngeen dem élection huit pour cent munoo ko am ëlbatu ko di tooñ Macky Sall nan APR nga tuddee sa parti te am APR ba pare loolu mooy lan barke Serigne Touba kii dama koy rek anamu anamu anamu ma ne anamu bu tourné ma rek dama ne ko ci peew laa koy def anamu ananga Idrissa Seck anamu eh dama koy rey